waaw comme ni nga ko waxee xam nga le 12 moom la conseil académique bi réunir léegi jël décision bi le 13 ñu publier ko léegi bu ñu ko publier ñun euh, en tant que représentant étudiant bu ñu nekk euh, ñu jot l' en même temps que les étudiants. Mhm. te autorités yi xam nañ ne information bu génn université étudiants duñ leen woo ñun la ñu woo téléphone. donc ñun tamit on doit être au au au cœur des choses pour au cas bu ñu woowee ñu mën expliquer li nga xam ne moo xew léegi loolu après décision bi nga xam ne moom lañ jël xaw moon ci lañ basé pour jël de cette décision là parce que xam naa képp koo xam ne génn nga Dakar dugg dans les villages xam nga lu fa nekk. Mhm. boo toogee di di boo toogee fii à l'université di xool ne instant bi étudiant mun a toog dans les villages di def cours en ligne je pense que kooku noonu war nga xoolaat yow ban Sénégal nga nekk. parce que tamit xam nga lu réseau euh, nekkul euh, nekkul réseau boo xam ne euh, dafa am couverture générale amul donc aussi am na village yoo xam ne ñun xam nañ leen. pour nga pour nga pour nga mun a mun a connecté wu da nga yéeg ci ay garab pour connecté wu. waaw ça wala pour nga yéeg ci ay montagne connecté wu. village yoo xam ne amuñ courant mais ñoo étudiants yi nga xam ne ñoom ñoom dañu mën a connecté wu am na étudiants universitaires yoo xam ne ñun portable ñu yor ay portable simple lañu yor. Hmm. te ñooñu amuñ les moyens amuñ ordinateur bi nga xam ne mun na leen permettre ñoom tamit. d'accord ma ma comprendre naa. amul amul ordinateur amul amul amul. comme ça les appareils yi nga xam ne mën nañu permettre ñu def. les programmes j'entends lu nga bëgg wax mais est-ce que dans ce cas woon par exemple yéen seen côté ngeen ne. dañoo bëgg lii par exemple ñu ubbi ñu ubbi université wala ñu réfectionné université daar daar que par exemple euh, parce que revendication yi moo nekk recteur. na dem mais mais mais non non non loolu loolu du revendication. non mais dégg mais danga may déglu ma li nga ne parce que université laa nekk bu dee ba léegi université laa jógee fa laay demaat nii nii nii nii. gis nga instant bii nii gis nga lu ñun bi nga xam ne mën na jot communiqué bi on a dit que ñun euh, le collectif des amicales dañoo réunir ñu def un communiqué communiqué bi nga xam ne moom moom lañ génnee donc mooy comme ça on n'est pas d'accord par rapport au cours en ligne léegi nag parce que doo wax ma rek toog foofu noonu on a proposé aussi pour ñu ubbi université faculté yi nga xam ne pare nañ pare nañ seen cours ba mu desee leen examen kese ñu ñëw def seen examen ñibbiwaat ñi nga xam ne presque comme la faculté des sciences techniques bi nga xam ne instant moom laa jiite. Mm-hmm. trois semaines moo leen dese donc ci mois de juillet bu ñëwee. de na mun a euh, trois semaines de cours yooyu noonu après def li nga xam ne instant bi mooy mooy mooy seen examen après ñu mun a tëj parce que université ku ko xam xam calendrier universitaire bi xam nga le 31 juillet. Mhm. moom lay tëj. Mhm. donc instant bii nii avant 31 juillet bi faculté yi nga xam ñoo fa nekk. instant bii nii mun nañ def seen examen et aussi ñi nga xam ne pare wuñ seen cours mun nañ pare seen cours après tëj ñu bàyyi bu octobre. léegi avant octobre bi dina permettre li nga xam ne moom moom lañ def ay sakkal au niveau du camp social ñu mun a xool aussi euh, naka la def pour au moins loolu mun ko réparer. su ma loolu permettre ñu tey li ñu bind on a écrit au mémorandum bi nga xam ne instant on a euh, li nga xam ne mooy suñu idée. pour au moins tey euh, xam nañ ne buñ ko tegee su la table de l'autorité ñu toog waxtaan ci dinañ ci am bi on l'a